ñun 10 heures na may mais juróom bu 9 h la génn kër donc peut dafa topp sama conseil et puis la war a def dee Ousmane dañu bëgg nga dimbali Sénégalais yi pour kenn bañ a waxati ci lu rëy donc pour ñu loolu am suñ la woowatee da ngay dem wuy ji si jàmm ak salaam ñëpp am jàmm su ko defee vraiment ñu ñaanal la yàlla li nga xam ne mooy tolof tolof te yaa ko yóbbu sa bopp nga mun fa jóge ndax loolu nag moo fa yóbbu ndax moom moo wax ay nit tuumal leen ba léegi ngi xaar preuve gisuguñ d'accord monsieur le ministre dafa mel. mais nag man dinaa depuis tout à l'heure non non la li ma mooy wax ci entrepreneuriat wax ci <laughs> ay dese la ah, waxtu dese la waxtu yoo xamante ne mën nga ci ñëwaat mais monsieur le ministre dañoo gis ne ne ni euh, dafa mel ni daal ñii ñëpp li ñu wax mooy dëgg maanaam da ngeen di def deux poids deux mesures gis nañ fi euh, ngeen euh, waa Euh, Pastef opposition bi organiser fi euh, manifestation ñu neenal leen ko ngeen organiser manifestation biir te kër góor gi ñu nangul leen ko ñoom ñu bëgg a génn def point de presse ñu nangu ñu tere leen ko yéen ngeen génn def point de presse nangul leen ko ah, tey ah. jii est-ce que loolu du am du indi frustration boo xamante ne tey moo jur li mu jur actuellement tension bi ñuy dund fii aussi. ah non mais man cité kër góor gi d'abord damay préciser man def ma ko manifestation mhm. man damaa génn fa ma ne sama bërëb laa génn xale yu wër loolu nag yàlla moo ko def man def ma fa manifestation de. loolu loolu du ngeen ko nangul Ousmane Sonko. non non mais dama c'était spontané mosuñu ko xaari ci man. peut-être su ma ko defee benn yoon defati ko ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon su yàggee justice dina commencé wala gendarmerie wala police dina commencé di ma suivre mais man maa xëy di dem sama meeting génn xale yi wër ma man tam ma profité ci wax ak xale yi donc ñun gisuma deux poids deux mesures parce que ñun ñu ngi def ay demande de manifestation ñu koy tere léeg-léeg. léeg suñu xale yi suñu. waa day am léeg mu am comme tamit nu mu ñàkkee bëri manifestation opposition bi ñu leen koy tere man li ma jàpp rek mooy droit de manifester dafa am mais droit aussi dem ak dikk aussi ñu ëpp ñi bëgg manifester ñoom ñoo ko am tey soo jëlee benn groupe sénégalais nga ne mën nañu deux cent mille wala trois cent mille nga ne am nañu droit wu dangay da ngay bu groupe cinq millions de sénégalais ñoom tamit yu am droit wu dem ak dikk donc ñaari droit yooyu nga xam ne. parfois dafay xaw am contradiction kenn rek moo am droit xool ñaari droit yi ban lañ ci war a jël teg ko ci kaw tey soo àndee manifestation boo xam ne ça concerne peut-être 5000 personnes wala 3000 personnes nga gis ne dina yàq droit wu par exemple 2 millions de personnes wala 3 millions de personnes mais dama ne préfet moom moo am obligation ne man droit wu 2 millions de personnes wala 3000 personnes yi man moo ma gën a soxal yéen droit wu 500000 wala 200000 personnes yi. <laughs> loolu affaire mais bu fekkee nag comme ni ñu koy mm. euh, ko nekk di nga delluwaat sa kër. dem bi librement sans aucun problème loolu moo tax ACAPES par exemple ñoom nangul leen ko. loolu moo tax <laughs> Mbacke <laughs> ñu nangul leen ay temps loolu moo taxoon aussi ñu nangu leen feneen ak feneen ak feneen mais nag lan moo tax nangu leen nangulee kenn wax loolu. fi ne et puis d'ailleurs loolu sax loolu mooy wane ne kon donc dëgg-dëgg euh, préfet li muy def daf koy xam ndax su fekkee ne dafa ne jàmm moo gën ay te ñun ñëpp jàmm moo ñu intéressé mais mu xam ne lii peut-être nangu na ko parce que jàmm bi lii am bëri nag su ko bañee dañu war a xam ne boobu su ko defoon peut-être du ñàkk dina am ay débordement ba ëllëg moom moo ci war a justifié wu parce que ci responsabilité dem na parce que moom moo loo xam ne moom du ñàkk amoon ay renseignements wala ay yoo xam ne xamoon na ni fii la jëmee mm-hmm. donc loolu ay affaire u la nañ ko teg ci loxo préfet bu pare wóolu préfet. man moo affaire manifestation man du ma ci wax lu bëri. très ñu wax ci alternative euh, bi nga xam ne moom ngeen di war a recherche ci seen biir ndax président Macky sàll moom du bokk. xam naa kon <laughs> yéen a ngi waxtaan ci seen biir pour seet ban candidat ngeen di choisir ndax ah F24 moom taxaw na ne moom du bokk. <laughs> mais par. Hmm. yow yaay conseil constitutionnel li fi kañ nga nekk conseil constitutionnel conseil conseil ah ba pare na yow kii mooy bokk ak kéema du bokk xam nga kenn luy bokk ak ku dul bokk loolu ku ko xam mooy conseil constitutionnel sincèrement ñoom seen heure su jotee ñoom dinañ juger kan moo war a bokk ak kan moo war a bokk. léegi kan moo nar a dem conseil constitutionnel. président de la république. am na si sañ-sañ su ko neexee mu def ko. moom mi toogoon euh, euh, bindulu constitution. Euh, wax lan la bëgg ci constitution wax ne que day verrouiller euh, pour ñu bañ a wax waxu euh, troisième mandat moom mooy delluwaat dem laaj constitution loo xamante ne moom ak ministre Ismaïla Madior Fall ñoom ñoo toogoon bind ko mais nee na day fekk yow question bi nekk question troisième mandat mais am na ñeneen ñu ne question bi question deuxième quinquennat donc c'est un débat président réglé na loolu ba pare non non dafa am ñu ne question wu deuxième quinquennat la am ñu ne question wu troisième quinquennat. non non on parle de ñaari mandat yu tegloo yi nag. liñ ne kenn warul teg ñaari mandat yoo xam ne dafa tegloo. waaw léegi il faut nga xool mandat waaw il faut nga xool mandat mooy lan lan mooy mandat. ah mooy liñ ko jox mandat mooy pal buñ la pal. waaw ci cinq ans ci suñu constitution. <laughs> pal buñ la pal depuis 2012 non non mandat suñu constitution soo koy lire de manière très lucide de manière très franche mooy pal buñ la pal pour cinq ans. loolu mooy mandat léegi nag Macky Sall ñaata mandat la defagu ñett ñaar benn bu juróom-ñaari at ak benn bu juróomi at mm. voilà léegi nag bu juróomi at bi non yaa ko ci boole loolu moom yaa ko ci commandé léegi nag loolu nag ndax si la bokk wala bokk ci boobu laa ne man Pape Malick Ndour mais mais monsieur le ministre droit nekkuma juge constitutionnel yéen yi nga xam ne tamit yaakaar naa am na ci jàng droit certes yaa ngi dégg mais nekkoo leen juge conseil constitutionnel donc nañu bàyyi ba conseil constitutionnel wax et beneen bi mooy dafa am lu jiitu loolu. lu jiitu mais F24 dañu ne du fa yegg. xam nga loolu waxu rubee la rek di di beneen bi mooy lu ma bëgg wax sax foofu mooy xam nga balaa sax problème bi di posé wu comme problème juridique wala problème politique il faudrait que d' président de la dem déposer candidature te loolu dañ fa yeggagul. léegi nag jour bu président posé question candidature am nga xam ne problème politique bi réglé nañ ko day nekk problème juridique léegi nag problème politique bi lañ toll man problème politique bi li ma ciy wax mooy man Pape Malick président Macky Sall laay ñaan laa bëgg mu déposé candidature am abari ah conseil constitutionnel soo ko jugé ma loolu laa gëm lu tax ma gëm ko nag teguma ko lenn si dul politique teguma ko leen si lu dul gis li nga xam ne moom lay liggéey. ci Sénégal kon da ngeen di poussé président de la république parole am bi mu doon bi euh, la parole donnée nu mu sacréwee en tant que njiit da koy poussé tey jii pour mu dédiwu président de la république def du wax waxet. non no man plutôt dama koy pouse plutôt pour mu bañ ñu tay la ñun Sénégal fii <laughs> yaa ngi dégg man parce que nag Sénégal attention gis nga non no moi je suis très sur li may wax gis nga Sénégal dafa nekk à la croisée des chemins yaa ngi dégg. Sénégal dafa nar a am ay richesse yu am solo yu ñëw bees yaa ngi dégg Sénégal nar a nekk léegi nar a euh, euh, euh, appétit mu nar ko ay voilà aiguisé voilà yaa ngi dégg ñu bëri non c'est c'est un peu même c'est c'est trop dire même pas dafa ndaw ci loolu nga koy wax maanaam nit ñi dañuy xool Sénégal teg ko ay bët yaa ngi dégg du ko olof di waxee si olof laa gën a mun a waxee maanaam dañ ko ne fàng yaa ngi dégg Sénégal c'est plus même demul ay question appétants ay question yu grave la mhm. ñëpp teg ko bët ba tax tey da koy sax xool à l'international soo xoolee bu yàgg ma Sénégal dara su ci su ko seen TV deful direct ah man en tant que jeune xaw ma nan nga a réfléchir noonu papa Sénégal bokk ko léegi léegi Sénégal lu ndaw su fi amee rek benn waaye bu ñu ko jàppee sax bu ndaw opposant bu ndaw ñu jàpp ko boo xam ne siwul baax Sénégal sax dañuy gis ay télé yu mag ñoo koy wane à l'international loolu man dafa attirer sama attention man en daf ma jaaxaar daf ma jox daf ma jox jaaxaare daf ma xaw a tiital. mais est-ce que vous n'êtes pas en train est-ce que vous n'êtes pas en train d'insulter tey jii. Euh, euh, tout le peuple sénégalais parce que non euh, on a entendu dire ça yéen ak ñeneen ñu ñu invité ci plateau bi qui tiennent à peu près le même discours président de la république dañ ko soxla parce que dafa war a peut les intérêts du Sénégal président de la république dañ ko soxla parce que justement dafa am ay ay ay peut-être le Sénégal mais vous voulez dire que y a personne koo xamante ne tey jii mën na remplacer président de réussir ay prouesses ñun daf ñu daf ñu interpellé te ñun en tant que patriote en tant que sénégalais en tant que génération bu bees bi nga xam ne ñun dañu war a donn moom président Macky li muy def c'est des convictions fortes ñun ànduñu président rek parce que woy dañu ànd ak moom parce que c'est lui le président wala dara mais non non non moom dafa ñuy inspiré le président Macky Sall est notre leader te leadership ko wonee président Macky dafa nekk ci réew moo xam ne dañ ko entouré par benn cercle de feu boo xam ne am na yorin bi ñu doon xawee taggatémbe rek tey Sénégal waxtuñu sax waxu Sénégal tey soo xoolee du ma citer ay dëkk mais ñëpp xam nañu quand su sous bi nu mu toll président téye Sénégal téye ko moo am mu ne téye ko ak fulla ak fayda téye ko ci téye bu mat sëkk ba Sénégal tiga tojo fi. malgré moom moo ko wala force de moom mooy le chef de l'État. Mm. c'est le chef suprême des yaa ngi dégg fulla ak fayda la ko la ko.